man muus sax dootuma ko tudd <laughs> man ay yooyu yëpp duma ko waxati sama yoon tu ci parc ànd ak yooyu yëpp génnal ci yooyu dama leen fasal kanam donc maa ngi tàggoo tàggoo bu sérieux mais ngeen baal ma assan moo ma tooñ moo may sànq naa bul fàtte bul fàtte Macky Sall. <laughs> mais mais moom Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu da ne woon gaal yor sa ëmb ñaanal gaal gi mucc ndax bu gaal gi eh, ci benn animal baalal leen ma rek loolu mooy la comme président mu jiite dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na mucc amiin ak àggale ak amiin amiin daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ko gudd fan yaru rek waaw ndax bu wéree rek yaru rek lépp baax yàlla ko yàlla may xale bu ci yaruwul moom yaru rek projet yi ak jàmm insha allah jërëjëf macha allah jërëjëf Assane jërëjëf yaa Oustaz ba àjjuma yaru rek. waaw yaru rek ñaanal président yàlla guddal fanam. ñaanal président rek te tàggoo ñaanal ñi def anniversaire yëpp tey nag. du ma ci yokk dara tey jii bari na ñuy def année tey ñoo xam tey la seen bisu judd. du ma yokk dara ak lim léegi. ci rafet bi di jóg mu baax mi soxna si doomam Tidiane tey lay anniversaire moom tam ah, Ramata ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér mais Ramata dañu ko baale rek ñu nga pale de wala <laughs> ma noppi waaw ñaanal yaru rek yàlla guddal fanam laaj pap <laughs> euh, eh, tey nag maa nga jëm Banjul xam nga. <laughs> demal man dematuma fenn damay yanu rek. ci aja ci àjà àdduleet mu baax mi. àdduleet ah. ak ñaanal nuyu suñu Serigne Serigne Mor jàmm euh, si.